gaar bu mag bokk ci dëkk bu sell bi di Touba waaye bokk ci gox yi nga xam ne yenn saay dañ fay fel di nemmeeku ay jéeya jéeya yooyu ñu dëkk ci boobu gox ñu ngi wax ne la ko waral weesuwul tabax yi ñu fa bàyyi muy ay tabax yoo nga xam ne yeggul yenn saay ay gone di fa dugg di tox yambaa wala sax nu jàpp kenn dugal ci biir daal di agressé waaye takk der yi def seen kéem talaay kattan saa su ne di fa dem waaye mu mel ni njaw mi ngi wéy di desu xambin tay ci suba ben goné gu tollu ci fukkat ak ñent lañ fa fekk nu fat ko eliman cham la tuddoon. eliman sama dom la ko jur tuddee ko sama bay man ma wol ne ma gaañ ma dal ko mu gaañ man loolu rek la ci mo ci naan wax dëgg yàlla mënaguma jox dara ndax xamaguma lu xew dem dal tak jóge na kër ga ay 11 h demi dan def fin ba ay 4 h mu ñëw añ gisumako ma toge ba nga wan dem na Mbàkke bi ma ñu wo ma dama gañu lo na loolu rek laa ci amoo ci benn affaire wax dëgg yàlla. ñu ci paas bi moo liggéey fii sama doom la ci paas bi liggéey maa ko jur waaw ah, magam ma nga ne kay kay mooy magam moo topp ci moom waaw. Ah, fukki am 400 am ñëw naa fii xool ko gis ko. Ah, loolu la loolu la quoi waaw. lu ñu dar booy la ak leen di jël si di leen waccaat ak tabax lii mooy problème bi. ñu bëgg kay mooy ñu dégager tabax yi complètement booy yi parce que réseau booy yi dañuy gën a màgg fii. Touba warta am réseau bu toll nii parce que booy juddoo ci koñ bi sax buñ fekkee booy ci ñoom la ñuy dugg bu loolu amul buñ fajalee suñ bopp suñu yoon newut parce que laat kaa nga ne léegi laa ko nuyu jox ko loxo mu ne ma caam na nga def ma ne ko dama yaakaar ne de xamuloo ma tey biñ fi reyee nit laa su ko gisaat laat ka dara lañ ñu jëriñu waaw diggante fii marché Ocass beneen marché mënu fee nekk biñ ko fii tabax at mi ñu ko fii tabax nee naa leen fii trop ko di lay doon dikk nañ bëgg enquête sama xaalis ma fi jaayi place may leen lànk naa xam naa fooy mujj parce que fii yàgg yàgg kër yi lay doon diggante ñaari ñetti marché yi nan la fi marché nekkati ah marché bii niñ ko war a def gratter ko ba mu set ñu def ko ay école wala ñu def wiir gaal wala ñu def koy kër gis nga Touba li ci nekk mooy kenn ku nekk na ngay toj sa bopp jarax rek fa la neexee mais xam nga ni lii nuruwul dara ay saltemaak ay ay ay yoo xam toujours ñu ngi def ay ay ñaawte waaw li sëñ bëgg mooy suñ bëgg-bëgg parce que lu baax rek lañ bëgg ñun ñëpp yam fi ñuy liggéeyee ah, am sécurité ñu mën liggéey normal suñu njaboot di liggéey mais gisal lii kii mi ngi ñoo koy suude tey mi ngi nii booy bi rey nañ ko. wax dëgg yàlla mbedd bi sax boo fi jaar da am problème man jóge naa fii Dakar ñëw ba laangoo ci gaar bi Magal tuba mais jaar fii xaw ma fii nu mu demee benn police moom ma arrêté fii ni ma wiril nga jaar ne parce que fii dafa am problème man fii li ma fii seetlu ba seetlu mooy tabax yi ñu fi tabax amu fi benn sens parce que li gën a soob ba soob mooy tabax ay tabax ba pare dara nekku fi. kenn ku nek nga dëkk ci koñ bi mëno fexé ba jaar fi yow da ngay ñibbi sa kër sax da ngay jaar benen bedd te dëkk bi wërta am wërta am benn benn benn benn benn ki xamanteni interdit lay mbedd yëpp da nga fay wara jaar normal di dem waye yow bala ngay dem sa kër faaw ngay wiri di wir wiral ñu dëkk ci koñ bi nu ñu def am nañ problème bu reuy parce que képp ku fi nek yor fi sa doom do am xel mu dal loolu mëna ñak la tabax bari nañ ko daanel buñ fi mënoon def hôpital ñu def ko fi buñ fi mënee dag ay kër ñu dag ko fi suñ fi mënee def leen ñu def leen mais tabax mo fi amul ben sens parce que man loolu la gëm fii nag dañoo war a bàyyi maanaam dëkk bi naan dëkkub yërmande dëkkub yërmande borom bi mu koy sanc yërmande la ko sanc woon waaye ñun ci bopp ñoo yërëmul borom dëkk bi yërëmul borom dëkk bi ah am na loo xam ne yërëmul borom dëkk bi nit ki nag da nga yërëm borom dëkk bi ba pare yërëm sa bopp waaye ñun yërëmul suñu bopp yërëmul borom dëkk bi xëy na nag cas bi am tey nii tey la gën a garaaw ndax wax dëgg yàlla li fi am nii musu fi am mais am na ay nit ñoo xam dañ leen fi dogale fii di leen dogale fii di jël seen alal am na jigéen ñoo xam ne ñi wuñoo jaar fii am nga ponk la maam góor goo xamante ni toog fii liggéey woo defoo dara say moroom di liggéey di ñëw fii nga taxaw fale lu ñu am nga jéem kaa jël loolu teguñu ko fenn. lii dafa dafa ñaaw ci dëkk bi am na yoo xam ne dañ ko doon dégg feneen mais léegi Touba gi lañ koy dégg. bi fa Dakar ak tur dem tey ci suba ay waajur yu sëngéem la fa fekk naqar tiis saawaan baawaan ci boobu gox waaye takk der yi di def seen kéemtalaay kàttan ngir xam ana kan moo fa Elimane